docteur Pape Amadou Ndiaye euh, di responsable euh, ci biir euh, Thiès nekk agent et acteur de développement ci groupement féminin ñu gis sa taxawaay boobu léegi ëpp na fukki at ak juróom benn ci wàllu social tey mu mel ni am na beneen mode opératoire ci wàllu financement pour accompagner jigéenu Thiès ci mun a soxali seen bopp li ni mel lañ duggoon rek nga wax ni lan moo war a tey projet bi ak mbébét yi maanaam xam nga jigéen ñi dañuy liggéey léegi nag euh, di liggéey autour de suñuy wax kees maanaam crédit solidaire yoo xam ne dañ koy lebalante seen bi waaye fi mu nii des fois dina am ay période comme yi ñu jëm nii xam ne ñi ngi jëm ci koor gi wala ñi ngi dem incha allah après Korité yooyu ay période de point la yoo xam ne dañuy soxla euh, ay financement loolu moo tax ñu wut partenaire boo xamante ne muy crédit mutuel moo xam ne dañuy jénte liggéey ak jigéen ñi pour ñu renforcer seen kees yi pour ces périodes euh, d' activité loolu moom moo tax tey ñu indi suñu partenaire muy crédit mutuel pour jàppale jigéen ñi ci seen kees ñi nga xam ne soxla nañ ko. alors mu mel ni toujours euh, ci wàllu euh, soxali jigéenu Thiès ci ngay dox ci wàllu développement tey yan jafe-jafe nga gis ba tax tey docteur gën a sawar ci ànd ak jigéen ñi pour jàppale leen. jafe-jafe yi tey bu ñu ko doon numérer. maanaam xam nga jigéen ñi soo ko xoolee ci kër yi ñoom ñoo yor kër yi. soo gisee jafe-jafe yi ne ci biir kër yi jigéen ñi ñoo ko yenu donc euh, te ñu xool te tamit jàmbaar lañu waaye nag dañu leen a encadré wu yoon lañu amul pour mën a def li nga xamante ne moom moo leen di indil koom jigéen ñi ñu ngi ci marché yi jigéen ñaa ngi ci tool yi jigéen ñaa ngi ci tefes gi waaye nañu leen di euh, boole war leen yoon bu ñu mën a ci génne koom moom mooy jafe ci ñoom loolu moo tax ñun yàlla def ñu ñu encadré leen ci kees yi léegi nag ci tey jii ñu am tam benn partenaire mu crédit mutuel ñu jàppale ñu pour ñu nga xamante ne groupement yooyu ñu wutal leen ay euh, euh, maanaam tuuti koom pour accompagner leen yokk seen euh, alal pour ñu mën a gën a liggéey jëm ci koor gi ñu mën a jënd ay marchandise ay jënd tamit ay produits yoo xam ne dañ koy soxla ci weeri koor gi ak yeneen yoo xamante ne dinañ ko soxla tamit après ci nawet beeg yooyu yëpp muy yoo xamante ne ay crédit d'accompagnement la mais ñoom ci li ñu gën a soxla nag moom mooy kees ñuy liggéey waaye dañu am tamit ay crédit d'accompagnement mooy financement solidaire yi nga xamante ne moom la ñuy liggéey ak euh, crédit mutuel. alors euh, docteur bu ñuy xool boobu léegi yaa ngi accompagner jigéen ñi euh, ci wàllu développement ci ay kees te yemuloo Thiès da nga weesu Thiès ville département ba dem ci ay région muy Ndakaaru ak euh, Touba est-ce que tey euh, bu ñu doon def xayma est-ce que am nga satisfaction ci liggéey bi nga xam ne. waaw c'est-à-dire liggéey bi euh, du liggéey bu yomb ndaxte liggéey boo xamante ne changement de mentalité mooy nooy def ba soqali soppi xelu nit ñi ba ñu xam ne liggéey mbooloo koy def ak liggéey ak pas-pas du lu yomb nag parce que nit ñi dañu am nu ñu xalaate woon yàgg di liggéey boo xam ne da ngay ñëw rek jege si politiciens yi ne may ma may ma. ñun loolu nag dañ ko dindi léegi ay formation lañ leen defal accompagner leen tegal leen ay plateforme ñuy liggéey di ci am dara yombul nag parce que tey jii ba tey jii am na ay réticence maanaam am na tey gàllankoor waaye ñu ngi ciy dox yàlla def na tey Touba gi ñu nekk tey am nañ fa presque léegi ñu làpp 200 groupement ci biir Touba tey jii nga ñëw cees ñu ngi ci diggante li ñu tuuti ñuy nekk ci trois 300 groupement département bi macha allah aussi ñu ngi ñuy centaine de groupement yooyu yëpp muy loo xamante ne euh, lu diis la lool waaye tamit soo gisee jigéen ji koom giñ ci am ak euh, réalisation yi ñu ciy def moom moo tax lu mu diis diis après day oyof ci yow ndaxte da ngay xam ne que li ngay def nii jafe na tey waaye ëllëg dina la indi njëriñ. alors te lan ngay ñaax euh, askan yi parce que xam naa ni euh, ñu ngi wax ni ñu dox ci ay euh, mode de financement muy nguur gi ak ni mel pour rek gën a gaawal li nga xamante ne ñoŋal mooy koom-koom bi. waaw li ñuy def nii ci jiitu ba pare parce que président indi na ay objectif de financement yu mel ni DER ak yooyu yëpp yoo xam dañ ko fi teg pour jàppale jigéen ñi jàppale jeunes askan wi waaye nag xam nga li ñuy wax bëri na dajul suuf. président yi euh, organisme yooyu fi teg comme ay terre mi ngi financé mais ñun li ñu yor mënuñoo toog di xaar loolu loolu moo tax ñun tam ñu créer suñu ay propre activité wut suñu ay partenaires démarrer en attendant yi nga xamante ne moom mooy financement état yi bi ñëw loolu moo tax ñun tey ñu ngi gis ñu nii ñu ngi ci ay financement yoo xam ne financement personnel la ñun ñoo koy liggéey ak suñu ay partenaires en attendant nag comme toujours comme je voulais viens de vous les financements de l' yi nga xamante ne teg na ko muy FONGIP muy DER ñoom ñu ñëw pour ñoom gën ñu accompagner. docteur ci organisme yooyu nga wax mel na ni am na jafe-jafe yoo xam ne askan wi ba léegi sentir ko ni réellement financement ak wàllu euh, financement yi. non xam nga euh, financement yi euh, ñi soxla moo bari moo tax ñoom macha allah ñi ngi def seen liggéey yàlla def na tey jii ñu ci am ndam yu am solo mais nag pour mën a jot ñëpp moo dul gaaw te nit ñi dañu yàkkamti. loolu moo tax ñun ñu wut ay eh, li ñuy wax tubaab di wax voie alternative maanaam yeneen porox loolu yoo xam ne dañ ko ci jël en attendant ñu yëpp ñëw tey jii am na presque trente milliards yoo xam ne président def na ko si dans le cadre du DER mais teewul ne ñëpp mënuñ ci jot loolu nag euh, ñun ci yooyu la ñuy liggéey en deuxième wala troisième euh, phase su DER bi peut-être ñu gën a yaatu ba ñun ñëpp euh, jigéen ñëpp mën si gis seen bopp ak jeunes yi aussi également